dañu leen wax wax ju leer dama ne cinq ans dafa lu nga xam ni taxaw naa si jëmale ko si réew bi pour mun a am karange ñi nga xam ne ay sàcc lañ tey nar a raw waaw ndax dañu mën joxe euh, yi <laughs> diplomatie Sénégal dafa nërmeelu ñi naan mbuut mbaa mot mot ma gënal muut <laughs> dañuy jël sama doom di acharné wu ci moom loolu dama koy ñaawlu lundi 13 avril 2015 ñuy sargal képp ki nga xam ne rek ni ñuy bàyyi xel naan salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi seetaan seen télévision Walf TV gannaaw ban sant yàlla julli ci Seydina Mouhamed sang-sang yi géeru géer ni borom barrière or bi bàyyi rokkee fa bintu di sant suñu ñaari waajur di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan xam ñoo nekk coptu yàlla yàlla fëgg seen bopp prison yàlla yàlla génn te buñ génnee buñ defati li nga xam ne rek moo leen fay yóbbu di sargal ki capp cappal kanam gi kooku moo di Aminta Mbaye yaayi seex yi ak Mouhamad Cheikh Palin fàttewuñu Abibatou Ndour Ndella Amar nuyu nañ ko lu bare bare ñu nekk ci réalisation bi ku ci mel ni soxna Aïssatou Diagne naa nuyu nañ la yàq yaay Baba Ndiaye ñu ngi nuyu lu bare bare fàttewuñu ki nga xam ne rek moo di Cheikh Diagne Ndiaye euh, Cheikh Diagne Diop Ramatoulaye Sall madame Diop Séri la may amaan mbégte di jàkkaarloog moom ci li nga xam ne rek moo di suñu premier numéro de la semaine kooku moo di Sanjogu Meng Meng Mboor góoru ñiraan caare eh, di ko nuyu lu bare ba di ko sargal di ko tatagal aussi nan ko saa Meng noo def Meng Mboor eh, sukaa maa ngi lay nuyu di am mbégte di am contenté di nuyu téléspectateurs yëpp yi nga xamante ni ñu ngi ñuy teewlu mm-hmm. nekk ci biir réew ak bitim réew fu waay mën a nekk ñu ngi am ci ñëpp mbégte ak contenté mm-hmm. vraiment may bégaat encore une fois di jël seeg yéen di nuy les cinq millions de téléspectateurs de votre émission NEPAD musicale mm. ñi nga xamante ne bi yëpp ñoo ko safoo nga xam ne bu waxtu wi jotee wax dëgg fa yàlla amatuñ benn soxla ci benn émission xuuc mbal mm. loolu di loo xamante ne bi suka vraiment dañ leen koy gërëmee ñoom fan si mm. mais aussi tamit di ko gërëmee ñi nga xamante ne bi mooy télévision Walfadjri mais suka maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay ci loo na yow sant yàlla naka sa weekend euh, ça a été comment ça se passe ça va ça se vraiment yow suka yow man man suka jaaxal nga ma quoi mais suka yow man bu la xoolee seetlu la la yow suka gëmoo sa bopp quoi nga gëmoo sa bopp. loolu mooy lan gëmoo sa bopp xam nga gis nga hmm. nit da ngay gëm sa bopp être un naturel waaw être une fille naturelle parce que sa xeesal bi nga nekkee moom nga war a baax xam ne naturel oo nañu wax si dëgg rek ah yow su kaa sans xeesal doo feeñ télé. ku lay jël ci télé. imagine leen su kaa mu ñuul ko su bu ñuuloon te dinañ la mës a peinture nga ñuul ñu xool nooy mel parce que il faut ñu xool su kaa boo ñuulee nooy mel yaa yow boo ñuuloon xam fii ca xam ca baa ngi nii. yooyu dafa bàyyi boppam moom ñuul waaw yaa ngi dégg naturel waaw mi ngi nii géntele waaw waaw ba tey loolu am yow gëmoo sa bopp yow man maa ko wax gëmoo sa bopp te subaane naa la xamal lenn ci xeesal xeesal moom dafa am limite de comme lan xeesal ah. dafa am limite dafa am fu muy yem comme loo xeesal xeesal sugaa am na foo xam hmm. sugaa moom léegi fan moo ñuul loo xeesal palaayam palaayam daal léegi fan mooy ñu xeesal daal en tout cas xeesal am na limite lu leer naa la loo xeesal xeesal Aysatu jox ñu someer Aysatu ah. someer loo xeesal xeesal mm. fan moo ñu Aysatu someer loo xeesal xeesal am na mm. waaw ba tey Aysatu <laughs> li gën a fës ci seen émission Nepad musical bokk na ci dalal gu ñu dalal président Macky Sall. mu yëkkati ay kàddu ne gars yi nañ ñoppi bu ñu waxee ci dara lu jëm ci wàllu mandat mi nee ku bokk ci parteem da nga war a ànd ak yar te ku àndu ak yar dana dal ci sa kaw président Macky Sall xamle lu ni mel. maître Abdoulaye Wade. mi fëgg dënam daal dee wax ne bu sàgganul dina yëkkati kat Sénégal ñu daal dee jóg marche jëm ca pale ba ngir ñu jox leen kat la nga xam ne mooy këyit wa nga xam moom la war a jox waa CREI naq saale ginnaaw bi ñu tëjee doom bi yamut foofu moom maître Abdoulaye Wade nee na Souleymane Ndeena Ndiaye ci jëmmi boppam waxut nekk président de la république waaye du ko jege mukk ci kër àddina di kàddug maître Abdoulaye Wade. Moustapha Cissé Lo. Moustapha Cissé Lo nee na waa Y'en nañ leen yóbbu CREI yi ndax ñi nga xam ne ñoom la président Macky Sall wax ne ñun nuppi te ne miig ànd ak yar ndax Moustapha Cissé ci boppam bokk ci Moustapha Cissé Lo dana ca indi ay leeral. kër oustaz Iran Ndao. la fa xew ak la fa am léegi léegi lay doon. à l'heure. ñu ngi jégalu mu ngi nekkoon li nga xam ni rek euh, moo di sunu sommaire boobu la yaakaar naa ne gis ngeen ko dañuy wax souvent euh, seen mbégte mooy sunu yitte ci la ñuy jox fii moo fii la ci leeru jamono euh, di ci nuyu ki nga xam ne rek moom moo di sëñ Abdou Karim Mbacke Makarimal Akhlaq <laughs> sunu sëriñ boobu la doomu sëriñ fàllu ñu ngi koy zi di ko ziar di sàkku ci moom ñaan fàttewuñu sëñ sang Sarr sëñ Moustapha Sarr sëñ Jili Sarr ak sëñ Cheikh Sarr ñu ngi wax ne ñu ngi jégalu ci booy boobu nga xamante ni bi mooy booy Aline Diop parce que ñu ne kër stage Iran mu daal di teg sëriñ Ngundo xam nga ni loolu xamut fu muy teg tànkam booy bi dafa mel ni am na lu muy lokk voilà ginnaaw bi ñu wax ñu ngi nuyu bu baax euh, sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimul Axlaa di am ci moom mbégte kontaan di nuyu bu baax tamit ki nga moo neex ñi laan caare soxna Diop ajaratu Penda mm. Diallo Gueye ak alaaji Adama Gueye di am ci ñoom mbégte kontaante mm. di nuy Diop si mon ami moo frère di nuy Serigne Abdou Mangane Fatima madame Mangane ak Sadio madame Mangane mënuma fàtte ambulance di nuy tamit bu baax Mbaye Taï ma ca lal ba di nuy bu baax Keba Kanté mm. mi nga xamante ni bi Keba euh, yaakaar naa ni lañ waxoon defoo ko maanaam moo tax euh, ka nga xamante ni kii moom laa waroon nuyu euh, gisuma ko di nuy tamit ñëpp ñi nga xamante ni bi <laughs> ñi ngi ñuy teewlu <laughs> di am si ñëpp mbégte kontaan mais sukaa ça damay wax ni maa ngi gërëm techniciens yi Cheikh Tidiane ñi ngi koy gërëm di gërëm bu baax ki nga xam mooy Zakaria notre réalisateur toujours mm. ak Aïssatou Diagne ci taxawaayam bu ah, rafet ci mm. nga xam mooy émission bi ak Ramatoulaye Sall madame Diop nekku fi di nuyu tamit bu baax ki nga xam ne moom lay wax Babacar design nga xam ne tey vraiment coono bi mu daj ak xarala gi nga xam ne la vraiment muy liggéey bu am solo Baba design ñu ngi lay nuyu di am ci yow mbégte kontaan di rafet su ki su nga gisee plateau bi ma jàkkaarloo la dama ko bëgg a. lii laf cat laf cat laf cat. non dama ko dama ko bëggoon a meew bi rafet bi mu rafet. laf cat laf cat yàlla doole su. macha allah macha allah waaye Sénégal ah plateau bi bés bu génnee. waaye yeneen télé yi man xaw ma fu ñu ma teg ko gis man xoolal plateau bi oh. non mais vraiment macha allah. voilà yoolu nag yàlla bu mu fayaat voilà eh, ay eh, satu Aïssatou xoolal bi nga xam ni dem naa Sorano ci buuru Maïk euh, nga xam ni je suis le président de la république Macky Sall. man may nag àndoon ak. Euh, Marième Faye Sall mi toog. wan ma wan ma photo yi Aïssatou ma photo yi ñu commentaire Sénégal xool leen le président Macky Sall. ak Marième Faye ak Mbagnick man ak Mbagnick. xoolal président de la république moo nekk nii ngeen di gis nii. et eh puis ba Aïssatou teel looy parax paraxi quand même président Macky Sall encore moo nekkaat nii. le président Macky Sall ngi nii moom bi ma joxee euh, mbañik euh, li mu war a def gis nga ma Matador a ngo xolam mbañik a ngi nii bi ma defee discours ba noppi mbañik di def discours donc le président Macky Sall ngi nii vraiment mu nekk loo xam ne lu am solo la gis nga kii mooy garde corps bi Jules vraiment gis nga <laughs> gis nga le président Macky Sall et Mbagnick donc nekk loo xam ne lu am eh, solo la pour l'émergence de ce pays donc foofu Macky Sall la ngeen gis noonu mu daal di taxaw donc loolu nekk la xam am solo la keneen ki benn géwél bu ko doon Sambay Mbayaan la pour Sambay Mbayaan président Macky indiwaatal photo yi président Macky Sall géwélam bi ko doon Sambay Mbayaan <laughs> nee géwélu juddam la ooy yaay ooy as du mën a indi photo yi as dag ñu contrôle laat as du mën a indi waat photo yi Aziz nag jaaxal la ma bu doon rama ba tey indi na fa tey wuu rama non rama dafa ay ah. voilà président Macky Sall ak géwél bi ni muy sàmbe président fii la wax nekk loo xam ne lu am solo la ay surtout beneen ñëw waaye da bàyyi beneen bi ñëw ah jërëjëf bu ah. liggéey bu rafet bi euh, yow noonu nga tàmm di def jàññaar lépp bu ñaawul bi Aïssatou ñu ngi lay sargal jërëjëf c'est bon ne bi léegi nii nga nar a commencé liggéey continuer ci chemin bi di wut ay partisans ci biir émission wala président Macky Sall la ngi nii taxaw mm-hmm, ndeysaan gis nga euh, lii nekk lu am solo bàyyil beneen bi mu ñëw ñu bàyyil président Macky Sall sukaa kii sama nag ay su dooñu di yeneen waa ça va waaw c'est kon ça va dindi ko xoolal bi xoolal yii vert tubarkàlla waaw merci ci ah, sargal ñëpp nag di ci nuyu ñu ñëwoon fa la nga xam ne rek moo di ci buuru Mahe bi man mm. mu def fa discours boo xam ne discours bu am solo laa fa def yow fa def man def naa fa discours maa nekkoon sama la <laughs> yow maa nekk ko sama ma maa nekk ko Marème Faye Sall maa nekk ko sama loolu ngay ñaan yàlla pour nekk sama madame Dóor nga sa loxo ci xeex. doo ko doon man maa ko daw eh. bàyyi ma yow. maa ko bëgg a jox ñu clip clip doo am prix clip. Ah. Aïssatou madame ay Aïssatou chéri euh, may ñu li nga xam ne rek moom moo di clip jañ euh, naar sama xar bi sama lépp bu ñaawul bi et di ci nuyu nag Ramatulaay Sall madame Dio Ramatulaay chéri si boore ñu dem euh, di sargal aussi ñi nga xam ne rek ñu ngi teeskaay benn dëkk ñaari gaar ñi nga xam ne rek moom moo di waa Mbour ci di nuyu Sall lamtoor alwaar Bourgué de Macky ginnaaw bu ma sante yàlla maa ngi lay gërëm maa ngi lay fay encore une fois di la sant di nuyu le Sénégal et le monde entier. Mm-hmm. di am mbégte ak si teew bu nga xam ni tew na ko sur ce plateau. Mm-hmm. pour expliquer les questions d'actualité mais aussi di nuyu suma soxna si mel ni Mariam Faye di wax derrière tout grand homme y une grande dame. Mm-hmm. di wax chérie de cœur bébé. kontaan si yow di la déglu nga laaj ma tontu. <laughs> Euh, di la nuyu lu bare bare di la ziare aussi ah. waa président tax seen parti bi doon am coow ah. nga bàyyi ba instant bi nga leen di war a wax noppi leen. xanaa oh. boobu nag wax dëgg yàlla mënoo ko def bu yàgg yàgg. xam nga waroon naa ko mun a def bu yàgg wala waruma ko war a mun a def bu yàgg chaque chose en son temps. Mm. il fallait analyser ce qu'il ndax lu ñu war a wax la wala nekkul lu ñu war a wax. Mm-hmm. Pendant tout ce temps, j'étais en train de réfléchir pour voir alors lan laa war a wax ak ñu nga xam ni ñu ngi yëkkati kàddu yooyu di wax ni le président Macky Sall. Hmm. dafa war a doxalee nii wala dafa war a doxalee nale loolu lu am solo la. Hmm. pour l'émergence de ce pays. Hmm. Euh, ci biir loolu mu mal ni wax naa leen na leen loolu du sen cër. waruñu taxaw di wax mhm, man nañu bàyyi coow li ak ñeneen ñi parce que dafa am ñu nga xam ne ñoo yore mbir bi oh, muy lu jëm si wàllu justice lu jam si wàllu constitution mhm, mhm. parce que nag constitution bi du ma ñëw di ko wala mu ñaa wala ma koy mbalax mbalax lu si ëpp solo mais parce que ki fi dafa jëloon constitution bi def ko comme ku yor cornet caafam bu ko neexee la xas bu ko neexee la xar ci. muy maître Ablaye Wade muy maître Ablaye Wade ko jural mooy 23 juin. je pense ko loolu kan bu ko fàtte. Mhm, mhm. si loolu nag moo tax man du ma jël constitution bi di ko walax walaxee ak walax walaxee dama na ñu bàyyi constitutionnaliste yi ñu xool càmbar xool ba xam ana nan lañ mun a def parce que mënu ma tëb tëb wàññi suma mandat donte loolu laa bëggoon. ah kon bëgg nga ñu wàññi ko. loolu laa bëggoon. ah d'accord dafa wax. loolu laa bëggoon dama ne donte loolu laa bëggoon. mais da nga bëgg ñu mais bu dee ñoom xalaat nañ ni aussi kenn mënu ko wàññi ñu wax ko Sénégalais yi ne leen kenn mënu ko wàññi. <laughs> bu dee aussi tamit xalaat nañ ni Macky Sall kat amoon na yéene pour mu wàññeeku mais loolu vraiment bi ñu xoolee si article yi jaxasoo na ba de telle sorte que dañuy coûter lu cher pour l' émergence de ce pays. léegi ñu ne ah Macky. ñamaatal ñaari at rek. waay sama loolu du dara. parce que loolu lu am solo la. xanaa président lu li ñuy wax dëkk bi. dëkk bi lan. Ah, kon déggoo ko kon baax na. coow oh. li la doy en tout cas. Ah, kon baax bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi 88 628 99 99 114 allo. allo. Walfadjri allo. allo asalaamaaleykum soxna Souka nuyu naa la. Eh, waaye fay naa la sëñ bi président Macky maa ngi yow ma xam nga président ñun daal dañoo jàpp ni naroo ko parce que ba nga faloo nga waroon a def loolu waaye lu tax ngay xaar ba ba nëgë ni def lu ci jëm ngir leeral mbir yi hmm. ah yow kat yaa tax nit ñi indi ay coow est-ce que yaakaaroo ni mbir mi ci yow la jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, citoyen sa wax dëgg naa ko mm-hmm. mais affaire bi du si man parce que aussi tamit mm-hmm. li am solo mooy dama dëgg kilifa gu mag di wax ni mën ko def ko dara newu si waaye aussi télé ba dara mm. newu si mën ko def ko dara newu si télé ba yi mais aussi tamit télé ba dara newu si jéem naa pour wàññi suma mandat mais ak article yi article yi ni ñu walax walaxee ak fu ñuy duggoo ko génn pour nga wàññi ko day difficile <laughs> bala di ñëw bala di ñëw si xalaatu constitutionnaliste yi nee nañ ma bala di ñëw 2019 boobu nga xam ni mooy ñëw boobu si constitutionnaliste yi nee nañ ma boobu c'est possible. kon yow mais bii ma nekk nii parce que aussi tam bi ma nekk nii. waaw dama juré woon devant la constitution ne je fais respecter la constitution. Ah. dinaa ko respecter jox ko cër. du ma nangu kenn ku ko jalgati. te bu ma wàññee mandat bi day mel ni laal naa constitution bi. loolu ah. la Alaaji Daouda Faye wax. muy ku am xam-xam si wàllu constitution. na nga koo Alaaji Daouda Faye. Ah. wax na ko. donc loolu day xaw a compliqué li ëpp solo daal mooy ñun Sénégal nañ leen muñ mm. affaire bi nag dana nekk loo xam ni vraiment lu baax la pour Sénégal parce que dinañ si économiser plus de neuf milliards <laughs> loolu nag lu am solo la bu ñu yàq xaalis li ma xalaat daal rafet na nañ leen bàyyi constitution bi nii ni nga ko defee nii ma def sept ans après bale di ñëw bale bale bale sama <laughs> mandat bale di ñëw ñu wàññi ko yàlla naa falu si kàttanu yàlla jërëjëf <laughs> dégg nga li mu wax ko nga xam ne rek moom moo di président mag yi nee ñu bàyyi ko noonu rek ndax nee na noonu ñoo ko yora ñu ciy sargal ki nga xam ne rek moo di Dramé Kandji Socé mama mama Ndoye nuyu ñu ngi noonu lu bare bare di nuyu ki nga xam ne rek moom moo di Ndiol Diouf depuis Thiès kay euh, benn dëkk ñaari gaar fàttewuma ki nga xam ne rek moom moo di euh, euh, suma boss nekk fi nga xam ne rek moom moo di Guinée Conakry ñu koy gën a xam rek ci jàllo jéeri ci loolu nag dañ koy daal di dugg dugalee kooku moom moo di maître Abdoulaye Wade di bàyyi ci ki nga xam ne rek moo di Karim ak Sindiély di ko vivi mën nga xëcc chaise bi toog. je reste debout parce que je suis toujours jeune je me sens jeune euh, maa ngi lay nuyu euh, doomu Paradakasa Paradakasa busum penku di nuyu sa papa parce que bi muy génne Paradakasa boobu ci. jamono yu yàgg la sa papa nekkoon bët gëwélu Cees di borom parandaxasa parandaxasa <coughs> yooyu lu nga laaj pour ma doon jërëjëf Wade dégg naa wax ji leer na waa maître Ablaye Wade yow li ma jaaxal ci yow <laughs> xanaa da nga doon sa da doon dégg ngay sàkku ci nit ñi jàmm. nga ne bu fi kenn yëngal. waaw nga bàyyi ba li nga xam ne rek moom moo di 4 avril. Hmm. bi passé nga bàyyi ba 4 avril bi passé ngay ne nit ñi yëngal xanaa yow da doon baat ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall pour classe présidentielle ñu mën cee bàyyi ki nga xam ne moo di sa doom Karim. Hmm. Cheikh soxna si man wutuma ay grâce présidentielle yu ñàkk fay yooyu. ah j'ai pas encore vu que dama bëgg ay grâce présidentielle. boo tëjee ni hmm. dafa am aw këyit boo xam ni. Mhm. dafa war a jóge ci cré yi ñëw ci ñun mm-hmm. bu firndee ni Karim Wade ci lii lañ ko jàppee jëppi mm-hmm. ñu jàpp ko man gisuma benn yoon bu ñu yëkkati aw këyit jox ñu ko mm-hmm. te boobu léegi mi ngi bëgg a def ay depuis son jugement c'est pour cette raison loo xam ni droit dañ ko bind ci constitution sénégalaise. ma di lan. Mhm. muy boo jàppee nit. Mhm. da nga jël këyit googu jox leen ko. loolu ginnaaw ñoom indiwuñu ko. waaw mhm. ah, loolu bokk ci li sax nag soxna si. waaw ma ne Sénégal man maa woote woon jàmm waaye na koo ne du ma la topp fu ngeen jëm a soriwul. loolu leer si Sall muy. booy bi Macky booy la boo xam ni. Mhm. booy bu dëgër bopp la. ba tax ma ne ne Sénégal yo yëpp jóg ñu àndandoo marche ji pale ba dal ci kawam parce que li mu nekk c'est pas du tout normal c'est pas du tout sérieux suñu këyit la ñuy laaj tëj nga ñu jox ñu suñu këyit li laa war a suñu ngir yàlla. loolu rek laaj. loolu rek la ñuy laaj nañ ñu jox bu ñu mënut a jox këyit bi dinañ marché dem ca palais ba nu jox ne suñuy droit wasalaam. waay <laughs> euh, loolu la wax. nee nañ ko jox li nga xam ne rek mooy lu mu bëgg mu di këyit gi. Mm. bu fekk am na ku nekk ci ligne gi 88 628 99 99 114 allo. allo salaamaaleykum. allo asalaamaaleykum soxna su kaam. nuyu naa la waay. waay fay naa maa ngi lay nuyu. waaw Ablaye ñun de. waaw fay naa waaw biñ la posé nekk président nga daal di lu waral ree jooju. waaw li war a jërëjëf wax ma lu ko wund. jërëjëf jërëjëf xam nga li war a ji man sax maa ay gan la ki la léegi ba yooyu. waaw ma ne Souleymane Ndéné Ndiaye. <laughs> waaw léegi da nga ree da ngay ree Souleymane <laughs> te mën doon <laughs> président. waaw mënul nekk président rek monsieur Maître Wade Souleymane Ndéné Ndiaye mënul nekk président mu nekkoon ni nga. <laughs> loolu foor na <laughs> na. ma ne ma ne soxna si soxna si gis nga yow nga xam ne nekkoo sa papa nekkul candidat. ah yéen a ëpp saa Souleymane. kon Souleymane Ndéné Ndiaye la mel kon. ah <laughs> lii dara na. Souleymane Ndéné Ndiaye président de la <laughs> République. ay Samba. loolu de mooy lii de mooy. surtout les manières de yàqu projet de la République. eh waay maître Wade kontaan nga. <laughs> Oh, Euh, maître Wade nee na Souleymane nee na Ndiaye lii ça prouve que ni mën ta doon li nga xam ne rek mooy li mu wa li war a lijjanti noonu nag euh, ñu ci sargal ñi nga xam ne rek mooy waa Walfadjri 99 0 di jëmaxu nuyu na la lu bare bare nuyu nii ñi nga xam ne rek moom moo di ñin euh, soxna si ak ñi nga xam ne rek aussi ñoo nekk ay satu Diagne naax bu fekkee am na loo xam ne rek mu ngi ci sa xol boobu wala ci ñeneen ñi nga xam ne ñuy seetaan à travers Walfadjri leer jamono lan nga may jox li gundaa xol yi sama xet xol bi mu nekkoon Titi Aysatu <laughs> yaa ngi fi toj Aysatu xaw ma yoo nekk mois de waaye su yow xanaa man daa xaw ma daal ay satu Jaañ la xaw ma man daa xaw ma daal Ramatulaay xëy na Ramatulaay moo fi jum moo jum moo jum dëkk